point 25 104 477 40 02 point 32 asalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax si weer wu mag bi di la siyaar ngir seen waajur bu tedd ak jataay bi rafet bi nga toog te toogal fi al ummal islam yi waaye rawatina mboolem nga xam ne ñoo ñoo doon di apprécier bu baax sa taxawaay te di la ñaanal ko bu ànd ak lii nag ndax li tax ñu ñëw weesu sant Sëriñ Tuubaa sa maam ko ndax bi ñu yëkkatee liggéey bi tuddee ko jaayisatu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ala alamiya del Qur'aan al Karim mooy le grand prix international Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul pour le Saint Coran ku ne xam na ni ndigal mooy tax a dem moo tax dañ ci njëkkee mooy dañoo dem ba ca Cheikh ànd ko sa mag baax bi xam ne moom la dénk liggéeyu alxuraan bi muy Cheikh Mouhamadou Xabaar am ci jataay bi sax doomu ma nga toog Cheikh Abdoul Fatah ak seen mi nga xam ne kuy yëngu ci alxuraan moo yore lépp lu jëm ci wàllu inscription ndax concours bi dafa rëy ñetti banqaas banqaas bi ñu mokk alxuraan mën ko firi ñooñu sax ren bii deuxième édition bii jàll am marocain moo ko gañ te fii la ñëw fii ci kër Sëriñ Tuubaa yi ni ko ni ko Dubai di defee ni ko Arabie Saoudite di defee lañ koy defee ñu international dañuy membre jury dañuy toog ñu def ko ci internet bi nga xam ne atte bi kenn du mën a wax ni lenn ci si te ña ko def yëpp doomu Tuubaa ñu ànd ak Sëriñ Fallu Seck mii nga xam ne moo almunasiful am waaye ànd ak sëñ daal nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci communication ak Cheikh Mouhamadou Bachir Mbaye li ni moom itam lépp lu bi wuutu fi bokk yi gis yëpp ndax kuréel gi mag li tax ñu am mbégte nag dëgg yàlla li nga li nga da nga koo doon ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne bi xidmatil qur'ani wal laa yakbutu la bi dahabin mawrusi njëkk ñu yëkkati liggéey bi man daara alquran internat laa yor ca Ndakaaw def naa ci ay at na fa biir Mouhamad nekk moom it nekkoon ba bi ñu ñëw fii ci ndaam soxna si indi woon daan naa ñëw fii ci yow lay <laughs> dama laa xam bu baax ci bëgg lu baax ak def lu baax moo tax sëñ Xaadim saa bu ñu yëkkati liggéey bi mu jokkoo ñu ngay liggéey loolu waaye nag nga def ci lu yaatu na ndax li ñu fekk fii ci yow la sëñ Tuubaa di wax ci nax juraan bashaashatu wajhil mari xayrun min al xiraa fa kayfa bi man yaati wa huwa baax ku xam ne ne amoo jot te ku sollicité nga suñ boroom a loolu waaye gis nañ ni ñun saa buñ la soxlaa duñ toog lu mat waxtu te duñ dooñu gis loolu nag bëgg gi nga bëgg alquran mu ci sa maam ju baax ja moo ko feeñ ñaareel ba liggéey bi du yow rek yaa waaye sax bu fi ñëwee buñ génnee dana gaaw ndax at mu ne maanaam li sëñ Tuubaa doo xam ne at maanaam reenam ju ne day gàcceel démbam loolu da cee feeñ dañ tàmbali lañ gis ci si ko am ba weesu ñettam lañ mu muy ñaareelu édition bi ñu def ñoom bu ci ne buñ ci daan génn da daan jeex waaye ren jii biñ ci biñ ci génnee taalibe ñu Antoine Diome moom day ñëw jël genn wàllu kañu fii ñu waxee yow lu mu gàtt gàtt 17 ngi ci ñu ngi ci ñu tàmbalee ko kon day wane ni Sëñ Tuubaa amul morom muy ak addiyee ndax lu matutu saar saar wane dañ ne dañuy teg ci wetam addiyee yi juróom dañoo jël jaayisa bi misaal ko lu mel ni bâtiment bâtiment nag la koy téye mooy ay pot ñu ne kon nañ jël saare alxuraan yi. teg ko ci wet bi képp koo xam ne bëgg ngaa wutu Sëriñ Tuubaa ci ñaan gi ñaanoon ne wajal bi jaahil muntaqa xayaati riayata qur'an sil ayaati da ngay ñëw téye benn ko man mi nga xam ne man la jóge ci sama xel maa jëkk jël at mu jot fas yéene du ma ko manqué mooy sama ñaari saar maa jël fatiha ak zumar moom nag moo jël lépp tàmbalee baqara ba xaddi du ca dul fatiha ak zumar loolu dugg na ba noppi dugal kon dafa rafet ci ak cant toogee ku mel ni yow nga xam ne liggéey bi du yow dong yaa ko wax dëgg yàlla sa sa bopp yu baax yeeg sa rakk yi ñëpp ku ma ne si Habib euh, tubarkalla at mu jot la da ciy jël aw saar Touba ci kanam ci organisation moo ci njëkk dugal un million kon loolu cant gi day yaat waaye nag fi yow lañ ko te kenn mënu la ci ndax waxuma dara waaye yaatal bi ngay yaatal ak safo bi nga safoo liggéey te kuy liggéeyal sëñ Touba ku ne yow lay liggéeyal loolu nag mbégte moom nga xam ne da nga ko àndal te delloo ci ginnaaw loolu rek moo waral fuñ ci toll buñ koy tàmbaliwaatee ñu ne ñu yëgal la ko fas yéene ko ànd ak yow ren nag moom dañoo bëgg bis bu ñuy joxe kàddu prix yi te kër Sëñ <laughs> dañ ko bëgg nga fekkee jataay ba loolu daal danañ la ko ñaan incha allahu taala loolu daal xam naa ci gàttal man loolu laay wax di la ñaanal fan gudd ànd ak wér ñëw lool nag yàgg la fekk ci jàmm ji ak sutura si la suñu borom ci yow nga ñaanal ñu nag ñu am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa ndax jubluñ ci lenn lu dul loolu Euh, ndax dafa waxoon ni euh, fajal ajo yi ñi nga xam ne dañoo sax ci dama liggéey ko di xawaaija lazina daamu fi xidmati wa hum maaraam ñun nag bëgg a sax ci liggéey liggéeyal ndax amuñu lan lu ñu xeeb suñ dara mosu koo jël fas yéene koo jël ci dara yi moom moo tax daal ñu ngi sax ci yow nga ñaanal ñu am ci ngërëmam te dara bañ ñoo dog ñu dëgmal ko rek suñ xel bañ a dem ci lu dul moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu nee li nga wax léegi ne saa suñu ñëwee dañ lay daal di gis ni mu gën a gaawee nee na yéen ñi kenn ku ci nekk war na maa jóg seeti ko nee na yéen ñi nekk nga xam ne kenn ku dangaa yor suñu gone nee na yéen ñi nga xam ne kenn ku ci nekk man damaa war a jóg seeti ko mu ngeen àndandoo ñëw seet ma loolu dafa war a jàppandi ndax da ngeen maa yombalal sama gis leen te gis leen waroon maa jaral jóg sëriñ xaadi jaxati mi nag moom limu yor feeñal na sama wareef ak lim doon yéen ñi fi teew kenn ku ci nekk cër bi mu yor da ko méritoo rawatina sa jili sa kàddu yi ak sa taxawaay yéeme na nii ngeen def nag lu rëy ci man la ab soññee la ndax lii du ku nekk mën na ko kon nag ku ngeen ko defal mooy góorgóorlu rek li nga def ba am lii jaadu na rafet na

amiin mbokk juddi di mbokk taalibé yi ci ba sëriñ Touba sëriñ Mountakha xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak ci kilifte fu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr porte-parole xalif général des mourides ci njiital sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacké Falilou jiite daara alqurani ci Touba comité de coordination grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint Coran di kuréel gi amal jongante bu mag bi ci alquraanul karim ñu tuddee ko Cheikh Bamba Khadimou Rassoul ñoo am mbégte di yëgal mbokk jullit yi mbokk sëriñ daara yi ak édition bi dinañu ko tàmbale li ko dalee ajjuma benn fan ci weeru mars ba talaata fanweeri fan ci weeru avril ci mbooleem gox ci réew mi képp ku bëgg a bindu ci jongante bi mbaa nga bëgg ay leeral ci mbindu mi mën nga jokkoog Serigne Khady Diakhaté ca Diourbel 77 613 38 67 Kolda Thierno Mohamedou Arona Silla 77 510 82 43 Ziguinchor Ibrahima Fall 77 575 41 92 Kédougou El Hadj Oumar

Dakar Djouk 77 725 36 09 Thiès El Hadj Malick Diop 77 552 28 79 Tamba El Hadj Moustapha Wane 77 534 76 12 Kaolack El Hadj Lamine Fall 77 913 86 74 muy ubbi teg mbindu mi ci troisième édition Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran li ko dalee benn fan ci weeru mars 2024 ba 30 avril 2024 incha allah ci mboolem 14 régions yi ci Sénégal